yang supaya kamu ini adalah ya yang suka ekspor yang sama sama ya yang suka ekspor punya anak sama kayak kita yang suka ekspor punya anak nyaman nyaman sekali ini terus apa anak eh, anak ah temannya ke dekat akhirnya kena kasih untuk mata yang lepas menurut sama gue perlu mayor kita kayaknya betul délégation d' accord bu dee lu soxla ba xam nga ci jafe damaa gëm lu may jafe. yow loo tax parce que lan moo daan ko fokkaat. maa ngi ñëw pour pour dem baal ma fay. di nga wax di nga ñëw di nga waa Fass waa Paya. yaa waa ñu ma. fekk na naa ñu am ak waaye. di di nuyu waa Paya di nuyu waa di bokk ak di nuyu di nuyu sama waa Koungheul di nuyu tam sama waa Koungheul di nuyu euh, tam ñëpp a gëstu. kii yëpp daal moom mel ni moom dara. waaw ma ñëpp ñëpp a ñëw. macha allah te ànd bu xoolee xam na man daa ma bu nekk daan loxo day loxo day àgg suuf tànk àgg suuf. da ngaa tëdd de. sama loxo nga si kaw. da ngaa tëdd de. parce que waxoon xam nga Pape xam. sama loxo ngi faj si kaw su ma tànk kaw. yow da ngaa tëdd. mooy ma waaw waaw waaw yow daa ñëw. non yow kat mbay mi jaaxal na ko. mooy ma. kat ma def la sax. loolu perte na décote. rajo may ñu àndul combat yëpp perte décote. perte sonal maa ngi leen di gërëm. dañoo nuyu Pawlish. léegi. booy naat. booy naat sama xarit bi ak maam moom mu déglu maam moom deux trois la woon. waaw màtt bi dem na gën a nuyu naa la baax. xam nga combat bi. ñu ngi ñëw ci combat bi. waaw. sama yaay dëkk sama yaay dëkk Mbuur sama yaay dëkk Mbuur sama yaay sama yaay dëkk te moom lañ ko doon wax ndax sama yaay dëkk mais nag fii ci naaj bi doo ko laajee dafa laaj lépp daal dafa lépp parce que man damaa kontaan def ñu kontaan damay damay def non non non non. yu baaxul. Paul Mbaye. xam nga yow banque bi baax a baax. dama baax baax. gis nga bëri bu bokkee yàlla suñu bopp. damay wax. xam nga. man xam naa Paul Mbaye.

nag gan yi màkkee màkkee deux trois quatre am na léew ko wax. ah war na ko. li ma la mais xoolal mi ngi nii piis ba maanaam daal dafa ànd ak nekk maanaam gàttal. bu piis la jël yow bi piis la waaw foofu la. waaw waaw waaw. dafa la bu ko bu ko wax télé bi kon dootul la bàyyi ko def. non aar moom la ñu la jël daal dafa yàlla bi piis la foofu la mbëkk. moo tax moo tax ma moo tax ma sax ko da ko correct. mu muy wax la. bàyyi ko bàyyi ko mu dugg waaw. ala moo ngi ñëw de. ala waaw. dii du problème dama nga def dii du problème yaa man anam

ne xanaa mën na jàpp mën ko bàyyi. Ousmane Aliou ne waa Pikine ñu ngi xam nga pass naa def ak géej waay foofu laa def waaye dama def sama maam ko war nañu ne ko du ma bàyyi lii xam na ma kon booy naa ku jàpp gàddu ko bala ba dóor ba mu tëdd ne carrément gàttal laa. tubaarakat kon man moom rek Ousseyn Keita. Ousseyn Keita pour mu mën a ay contrat waaw mën na mën a am ay programme kon mbay kon may kenn ko dala jaay ba daan kaay ba ko di ma parce que sit naa ma ngi xeex ma tey tey daso kaay tey tey daso ban nga doo na ko ndënd man si si sutura ma dem di di di combat mu changé at bi moom moo def moom moo def kaan ba fa ba changé at waaw ma Ouzin Keita ba mu ko mbéjee entraîné ay yu ma bëri bokkul ndax xam nga loolu xool bay lay tax dafay war mën naa tax war ca kii bi nga def taw bi taw bi taw bi ma def ku ànd ko ko xataa ak ay mbir yëpp sama tànk laa xataa dem taxaw baa mën nga yóbbu mën na dugal. li nga bindoo la nga bindoo la. ma jaay ko lool. loolu man sa jàmm